Euh, ñun ñu waa unité Darou Salaam ñoo woote tey ànd ceeg su unité yi mbuur yi yëpp euh, def benn journée dépistage comme fi mu nekk dañu octobre rose te ko wax octobre rose wax jigéen te ko wax jigéen wax cancer du col de l'utérus cancer du sein parce que ñun la yàlla teral ñun la yàlla jàppale ñun la yàlla wërsëgal lépp ñun la yàlla suturaal Cheikh Issa jóg moom ak ay euh, naataangoom débloqué xaalis bu bëree bëri teg ko ci suñu loxoon mu ne dara ñoru ko lu dul jigéen jigéenu fan jigéenu mbuur jigéenu Sénégal ñoo ko ñor ci loolu la ñu jublu ba tey ba tax ñun ñëpp ñu nekk fi def dépistage bi muy dépistage cancer du col ak dépistage cancer du sein parce que jigéen ñi dañuy am ay problèmes yoo xam ne lu bëree bëree bëri voilà ñun ñi nekk ci hôpitaux yi xam nañ cancer du sein cancer du col de l'utérus li mën a yàq ci jigéen il suffit que loolu yëpp nag ay infection moo koy joxe te comme ñun parfois doole ji mat jot gi amewu ko parce que ñu ngi xëy di daw di dang-dange ci marché yi di xëy di dang-dange ci biir kër yi Cheikh Issa comme jigéen ñi te lii ñu ngi koy defee dépistage tey kenn ji ñu fi nekk ci fa téeméeri femme ak nangam yi ñu recruté teg leen fi tey andi leen fu ñu dépistage ku ci nekk waroon ngaa fay kenn ku ne juróomi junni Cheikh Issa ne déedéet lu tax waa Mbour di fay loolu te moom mu nekk fi te Mbour kese ñor ko mu jël som boobu teg ko ci suñu loxo ni bu kenn manqué ne ñëpp dépisté wu ci biir dépistage yooyu ci nga mën a xamee lépp li nga xam ne ay inconvénients la ci jigéen ñi ñu bëri ñëw nañ fi dépisté wu tey gis nañ ay mbir yu xaw a doy waar franchement je vous le sage-femme yi nekk ci biir xam nañ yu doy doy doy waar mu ngi ci biir ñoo xam ne tey lañ ko xam ñooñ dañ leen di référer au niveau du district sanitaire de mbuur pour ñu topp suivi bi. bi ñu bindee ci subaak léegi bind nañ lu ma téeméeri jigéen bu ma koy maa ci ak fanweer ak juróom bind nañ leen. te fi mu nekk ni ñun ñooy nar a arrêté mais jigéen ñi arrêté wuñu parce que dañoo soxla woon dépistage cancer du col te yàlla def na mbuur dépistage boobu amu fi ndax moyen amul dëkk bi amul xaalis amuñu moyen buñ ko defee Cheikh Issa porté volontaire ni moom mooy génne xaalis pour dimbali ci jigéenu mbuur parce que ñi fi nekk tey jógewuñu mbuur ah am na ñu ci Thiès am na jóge Ngekoox am na ñu jóge Somone ñoom ñëpp dañoo gis statut daw ñëw mbuur pour def si loolu kon ñooñu soxla ñëwoon ko ci seen dëkk di wax ne wér yaram moo gën lépp fagaru gën faju na ñom ñëpp dépisté wu ñëpp xol li nga xamné moy suñu lorangé li ñu gën sonal li ñu gën a jaaxal muy ñaar ñooñu ñaar ñooñu and rek ni duñu taggu muy cancer du sein ak cancer du col de l'utérus mo fi bari mo fi té lépp lu ko joxe infection la bul xép dara perte blanche bu ko xép bul xép sa kanam di xassan ci jigen lépp loo gis dawal euh, hôpital kër docteur nga saytu sa wér gu yaram. waaw xana di lancé wat appel rek wa Mbour diko ko lancé wa daru salam surtout parce que li ñu def c'est pas donné à tout le monde ndax euh, franchement Cheikh Issa Sall jogna pour lan Nous wa Mbour nit nak bu lay jappalé te ku nekk dañu am parti bu nous ni fi nekk siw na ci dëkk muy parti unité nous nañ jog taxaw jappalé Cheikh Issa Sall ndax kat la boxe su du président du ministre maire de bi mona a ah yu yi jub si na te moom candidat la damay damaa juk pour jàppale waa Mbour yaakaar naa nak waa Mbour ah ken gënu ñoo gore de Cheikh Issa dañ bu tëdd nelaw sax waa Mbour lay gént kon xanaa ñun bu ñuy nelaw Cheikh Issa lañ war a gént te am naa ci yaakaar yàlla bu yàlla tas suñu yaakaar di lancer ñëpp appel na ñëpp ñëw jàpp suñu parti muy unité hole ko ànd ak ñun xooluñu ko ànd ak ñëpp jóg ànd ak ñun ñu liggéey Mbour. Cheikh Issa gën a dëgëral di wan ni Mbour mom liggéey na Mbour. ba ñëpp xam ne macha allah bon liggéey na mbuur jàppale na waa Mbour jàppale na waa Mbour avant que muy nekk maire continue ni jàppale waa Mbour ci bi mu nekkee maire di fas yéene nag vraiment di gën a yaatal liggéeyam di ko jëmale ci côté Sénégal yëpp macha allah. di wax ni même boo xoolee sigle bi nga xamante ni moom mooy unité nga xamante ni dafa woo ñëpp ci euh, liggéey bi macha allah. bon franchement parlant man je dirais que suivi dina am ci cas parce que euh, le président Cheikh Issa Sall képp ku ko xam da nga xamante ni moom il est très social. boo dee xool bon côté social yàgg na ci liggéey sunu quartier bi Daaru Salam, amul am na pas mal de gens yi nga xamante ne dañuy dem dépisté wu am sen feebar mais bu ñu ko ko waxee Cheikh Issa Sall da ci def euh, loxoom waaw da ci def loxom bu baax a baax lolu ñepp ko xam motax ñi nga xam dañoo ñëw sax dépisté wu te xam Cheikh Issa Sall mom moko organiser donc ñom sen xel dalna parce que ñu bari bu nangu ñoo dépisté wu parce que dañoo ragal sen fièvre feeñ ñom ñoom am moyen yu ñu ko traiter mais avec Cheikh Issa Sall ñom sen xel dalna parce que yalla téré yalla téré on le souhaite pas mais képp ko xamanteni ni wu ci vraiment nga gis ci yow ab jangoro je crois que euh, Cheikh Issa Sall pare pour euh, jappalé la ci bu bu baax a baax comme ni mu ko don défé bon octobre rose bi pour Darussalam. euh fi la parce que boo xoolee euh, comme par exemple Cheikh Issa Sall mbour lepp la. Cheikh Issa Sall Sénégal la Cheikh Issa Sall département bi la Cheikh Issa Sall région bi la donc duñu wax ni fii lay yamagum comme par exemple ñun def nañu je crois que ñeneen ak ñeneen di ñeneen def ta Cheikh Issa Sall mom dal paré euh, na pour lolu muy octobre rose paré paré na ci puis leneen ak leneen leneen encore vraiment pour euh, askan bi Cheikh Issa Sall il est toujours prêt. bon échange ñu dëgmal vraiment ñu rappeler ñu wax ni dañuy dem ci élection législative élection législative euh, législative yi ñuy dem c'est pour les députés.

ki nga xamante ni même boo ko accusé nga accusé ko rek moom mu porte les plaintes parce que dafa set loxo dafa set loxo ay kàddu Cheikh Issa Sall boo ko déggee sax vraiment danga koy bëgg vraiment di ko teg ci ay waaraate parce que léppam da ko teg ci yoon waaw mu nekk ko nit ku jub nit koo xamante ni bëgg na Sénégal nit koo xamante ni dafa simi dafa simi robbam rob bu avocat am vraiment pour taxawal dëkk bi taxawal mbuur aussi vraiment pour taxawal Sénégal kooku ku mel noonu soxla nañ ko ci assemblée kii nationale parce que am na xam dina xam aussi lu ñu war a voté ndax baax na ci réew mi wala baaxul ci réew mi Cheikh Issa Sall du nekk mukk koo xamante dina ñëw taxaw ñu war a voté lu war a jëmale réew mi kanam moom moom muy ndee non donc du genre boobu te loolu ñëpp ko xam donc ku jóg nag pour réew da ngay jóg pour lépp loo xamante ne moo baax ci réew kon boog ñun waa Mbour nañu wane suñu bopp ci vraiment ñu voté ki ñuy wax ni mooy Cheikh Issa Sall di rappeler nag que Cheikh Issa Sall fi mu nekk ni àndutul ak Macky Sall c'est pas parce que dañoo am rëkk-rëkk non non non non c'est parce que les politiques sont il faut que taxaw vraiment défendre l'intérêt défendre ce ça ne veut pas dire que faut bloquer quelqu'un. il n'est pas là-bas pour bloquer quelqu'un il est là-bas pour l'intérêt du sénat.